mbokki Pambal li de mo téré nelaw Macky Sall moy dox nemmeeku ñew fekki sénégalais yi seen biir dëkk sa fonté ak ñom li lañuy baña dégg motax sa su nee ñi ngi reprendre tour bi rek lu ñu ci ay bouteille dinañ ko yëngal lu ñu ci ay magistrat dinañ leen yëngal gis ngeen li fi nekk ci alkaat xam ngeen ni lii amoon na feneen fu moom am njëriñ fu dul topp nii waaye gannaaw yàlla kenn mënuñoo tere def nemmeeku tuur nemmeeku tuur bi nag du dara lu dul ñëw waxtaan ak nit ñi seen biir gox waxtaan bi sax mënoon na ñàkk bu ñu duggoon ci dëkk bi rek saafonteeg waa dëkk bi continuer jàpp naa ni doy na sëkk ndax amul luñ leen lañ mënul wax amul luñ leen mën a wax tey lu ngeen xamul ba pare ndax yéen ñëpp yéen a ñuy déglu depuis ay at xam ngeen lan mooy suñu mbébét ci réew mi xam ngeen lan mooy suñu discours xam ngeen lan mooy suñu yëg-yëg kon suñu ñëwoon rek nuyoo dem parce que li ci ëpp solo mooy dugg ci dëkk bi da damay faral wax ni sénégalais da nga koy fonkal li fonk sénégalais fonk na kilifa diineem sénégalais fonk nag dëkkam ñaar yooyu boo ko nangul mu nangul la kenn ku ne sénégalais nga am nga fierté ci nekk sénégalais li koy firndeel mooy bu senegal demoon Coupe d'Afrique tey amatul Pambal amatul Morola amatul jaxaw amul feneen ak feneen ñun ñëpp sénégalais lañu waaye ci biir Sénégal googu nag ku nekk am nga foo soso te foofu nga solo soso nu mu tuuti tuuti tuuti moo lay gënal feneen kon ñëw fekk leen seen biir dëkk ñu nit muy lu rëy ci ñun ndax su ma fi jógee tey dinaa ku ma tuddati Pambal naa ne Pambal xam naa fi mu doon dem naa fa xam naa dëkk ba kon nemmeeku tuur lu am solo la ñu tekki nag ni nemmeeku tuur bi feddali kóllëre la suñu digganteeg dëkk bi feddali kóllëre la suñu digganteeg suñuy militant ak suñuy sympathisant waaye ñëw gën a jox doole ndaw yi ñu toogal ci dëkk bi la ndax moom de xam naa ni nawoon ngeen ko lool ci lu bëree bari waaye naw ko ci politique bi mu nekk waaye tey suñ fi jógee moom dina gën a am sac nit ñi ma bokkal politique di liggéey li fa gën a kawe ci kilifa ñëw na ba ci dëkk bi loolu am na ci solo Pambal nag dama fay gis loo xam ne dafa sedd sama xol ndax bi may ñëw dañ ma ne moom mii toogal ñu fi danaka wa dëkk bi gëreum nañ ko ci taxawayam ci walu liggéey ak walu kom kom té lool dafa am solo ndax nek exemple day yombal lu bari tay né nañ ma yor na tol bo xamné mo ngi mi liggéeyal mat 150 hectares wala lu ko ëpp ñu fi def xaal di fi def maraîchage di fi def ta te ñu kenn seen ñàkk bopp la ñu taxawal fi boulangerie taxawal fi station service te loolu xam naa ne li muy xëyloo ci ay ndawu dëkk bi bëri na kon kii dañ koy jox exemple du ma ne waa Pambal kese waaye dañ koy jox képp kuy patriote ndax at ci ñetti at ci gannaaw bi ñuy lancé vacances agricoles patriotiques moo taxoon ñu bëggoon ñëw visiter yu mel nii moo taxoon nguur dafa war a jàppale askan wi waaye nag ndimbal léeg-léeg ci war a fekk loxol borom moom li muy def nii ëllëg bu ñu amoon nguur gu baax nguur goo xam ne xam ne lan mooy priorité senegal priorité Sénégal du jël milliards yëpp dem suur ko Ndakaaru naam Ndakaaru ci senegal la bokk suñu capital la war nañ ko defar ba fu nit jógee ci àdduna bu ñëwee ne a ah, ñii de seen capital baax na waaye lan mooy defar réew mooy koom-koom koom-koom fan la nekk fii la nekk fii soo soo génnee ci dëkk bi léegi li ko wër yëpp suuf suñu mën a bay la suuf suñu mën a sàmmee la kon ku bugg a defar koom-koom réew lan nga koy defaree ci mbay la réew mu la gën a baax mbay moo la gën a baax bu ci sonn réew mu la gën a dëgër mbay ba fexe ba lu mu soxla lépp walla lu mu li ëpp ci li mu soxla ci li muy dundee ñu bayee ko ci réew mi réew moom moo la gën a dëgër waaye réew moo xam ne ceeb bi dañ koy jéggaani farine bi dañ koy jéggaani diwlin dañuy jéggaani leneen ak leneen dañuy réew amul komkom, kom lolou moy Sénégal ku bëgg défar defar nag Sénégal da ngay defar komkom kom te kom kom gi ci mbay la commencé ndax la ngay bay mo lay permettre après nga am industrie bo xam da koy transformer lolou moy andi valeur ajoutée la nga soxla nga dundé la ci ëpp nga génné bitim réew andi devise ci réew mi moo tax ki fi nek dafa xamul foog na ni gis-gisam yëpp mooy naa defar ab train bu ñu ne def nañ ci mille cinq cent milliards naa defar ab BRT naa tabax ay stade ñu ne def nañ ci cent cinquante cinq milliards ak yeneen ak yeneen waa jamono jooju loolu lan la àndi ci koom-koom loolu lan la àndi ci koom-koomu Sénégal dara la andiwul ci koom-koom koom-koom fii lañ koy defaree ci kaw gi kenn du ko defee foofu tey boo jëlee koom-koomu Sénégal Temer bo jël juroom ñett fuk ak ñett ya ma nga ndakaaru te Séné dakaru bo jëlon su doon Sénégal téeméer la dakaru matul matul ben genn wal la dakaru matul ben. mo tax nit ñi di joggé Pambal di dem Dakaru. waye xam nga ni ngelaw gi ñuy noqi fi ken du ko noqi de amu fi kon doomu Pambal bu amon liko fi gënal fi Pambal du dem Dakaru. ñun nag loolu mooy suñu gis-gis loolu lañu bëgg a tabax ak yéen loolu moo réew mu la développé rek looloo ko téye France bi ngeen di dégg mooy premier pays agricole ci Union européenne France bi ngay dégg seen mbay moo leen té Espagne mbayee ko téye Italie mbayee ko téye balaa nga naan industrie wax mbay loolu nag lu ñu bëgg a ànd ak yéen ñëpp la. te alalu réew mi ci biir réew mi xam ngeen ni yàgg nañoo noot tey alalu réew mi yëpp pétrole gaz zircon phosphate ak yeneen ak tubaab yaa ngi koy génne bàyyi ñu fi ñun suñu pauvreté te ndaw bu ne sama pétrole dem na sama gaz dem na sama phosphate dem na kon man maa ngi dem ñu ne ko doo dem ba nit ñi di jël ay gaal di dee ci biir géej gi jeunesse de Pambal indépendance sañu bëgg a jël fi mu toll nii nag 63 ans amuñu indépendance de amuñu boobu la bëgg a jël la may wax toujours suñu nee tubaab yi nangam nangam tubaab yi ñëw nañu ba ci man ba ñu toogee dama leen ne ñun bañuñu leen waaye suñu bopp ñu gënal bañuñu leen de waaye suñu bopp ñu gënal te réew mu ne noonu lay doxe lan moo tax ñun ñu yàgguñoon noot ñu nangu ko Cheikh Amadou Bamba lan la doon xeex Samori ture lan la doon xeex Lat Dior lan la doon xeex ñun ñu ñëw nag nekk seen i sët ñu ne ñu jox nañ leen indépendance waaye seen koom-koom ñoo koy téye seen euh, euh, koppar ñun ñoo koy téye marché public yi ñun ngeen koy jox ak leneen leneen ñun ñu nangu ko ba tey ji loolu nag moo fi war a dañ te buñ ko fi jëlee woon rek ba suñu alal réew ñu téye ko ci réew mi ku fi lubal alalu réew mi ñu teg yoon sa kaw kon duñu ñu toog fii ngeen naan ñu tali pambal bi leneen la ñuy wax waaye dañu wax tali pambal bi lii nag mooy contrat bi ñu séq ak yéen ñun ñëw ñu di yëkkati ay 5000 di leen jox ñëw ñu di leen dikk la ñu séq ak yéen mooy ñu ànd ñun ñëpp defar suñu réew yàlla xam na ni lu yomb la wallaahi lañu am ci koom la ñu am ci mënin France am ko la ci des moy am suñu ful la bopp ñaan yalla mu jox ñu ay njit yu baax loolu rek fi dess kon gis na nak ni fuma dem ñu ne ah bala ma nan salam alaykum ñoy a dégg boko laalé boko laalé bobu nak dama bëgg mu baña doon mu baña doon rek absence bu ñuy wax na doon jëf ndax askan aw askan bu jog taxaw gis ngeen seen kaaru gendarmerie nañu kenn dara bu dee juróom a génn mënal nañ leen dara waaye bu dee dix mille a génn mënañu leen dara moo fi xawoon mars 2021 jeunesse su Sénégal laay wax gis nga boo ko laalee boobu tey la war a door nag ci fikku weer yi nga xam ne moo dox moo dox suñu diggante ci ñu jëlaat suñu réew moomal ko suñu bopp ndax amul ku umpale Sénégal ni bu ñu yàlla may ñeeg 2024 Ousmane Sonko candidat la midi élection bi jeex na ci katam yalla wa légui est-ce que léegi est-ce que léegi yéen jeunesse Sénégal bi parce que magni gis nga magni sen xol lepp ngi ci ñun fañ a toog mën ñom moy ñi ñaan ñi ngay ñaan ndax du magni lañu naan genn leen ñu taxaw gaay de ñi ngay ñaan te gëm naa ni yàlla dina nangu ñaan yi waaye nag yàlla dafa bëgg ñuy sabab léeg nit ñi ne jàmm jàmm jàmm leen waaw waaye jàmm ñaar a koy dox jàmm ñaar a koy dox yàlla ci boppam moo bëgg a jàmm diine gi ñu bokk ñun ñëpp islaam la tudd ci salaam la jóge waaye teewul ki yàlla yónni woon ci ñun nga xam ne kenn ëpp ko yërmande kenn gënu koo bëgg a jàmm waaye toll na foo xam ne dafa mujj rocc jaas yi dem jàmmarlo te moo ñu gën ñun ñëpp kon ñun jàmm rek lañu bëgg songuñu kenn dóoruñu kenn reyuñu kenn tëjuñu kenn kaso te ñu ngi song ñu ngi dóor ñu ngi rey ñu ngi tëj kaso dama ne li gën a néew doole ci bàyyi ma boo ko dugalee ci néeg di ko métital dina am foo toll mu song la bu dee ab béy sax dina essayé mbëkk bu dee muus dina xosi bu dee xaj dina mat bu dee mbaam xuux dina la song loolu mooy résistance bi ñu wax kon boo ko laalee boobu est-ce que ñun dinañ liggéey li ñu liggéey ba ñëpp am yaakaar ni fukki weer moo des pour ñu jëlaat suñu réew moom ko Macky Sall ak ay magistrat am ne loolu du fi amee ñu nangu ko est dinañ ko nangu kon bu jotee kenn ku nekk ci yenn na fagaru xeex bi du Pambal lañ koy defee